ñi bokk ci lël bi 123 personnes lañu téeméeri nit ak ñaar fukk ak ñett si walu jigen ak gor, waye lim bobu ñom dañu représenter 12 communes yi am ci département bi ñom lañu représenter représenté bu ñu dañu fay defaat benen continuité ak suivi parce que Sénégal ñun dañu am ciat ciat li moy dinañu am tambali waye duñu am danel ñun nak ñu takku taxaw ñun ñi nga xamanteni ñoy chef traditionnel yi ci biir takku taxaw gi

ba sa morom jariñu loolu bokk na si projet bi nga xamante ne fii tey jii fi ñu taxaw si formation bi loolu bokk na si aussi comme que nun nag ay lébu lanu te li si ëpp si njaboot yi ak jigéen ñi ñu ngi jëm si géej gi ñi la rakkab keccax ñi la defar géej ñi la tëmbal gaal yi loolu yëpp bokk na si formation bi pour ñu gën a mën a soxaliku ak li ñuy wax petite et moyenne entreprise pour mën a valoriser jigéen ñi ak sunuy ndaw pour réew mi jëm sa kanam dëkk bi jëm kanam jàppale le président Macky Sall xam ne nun ax moom noo ànd nag de ànd ndox buur rek liggéey réew mi jëm kanam te Sénégal nag dafa war a jëm si kanam am na nañu yaakaar ne émergence bi nga xamante ne moom la ñuy wax jëm si programme mu PSE ñun traditionnels yi ñoo mën a delluwaat valoriser communauté yi delloo leen seen valeur émerger les valeur mu jëm sa kanam